bienvenue chez Cheikh Mengue Couture ana ñu bëgg lu baax ana ñu bëgg sañse yu rafet yi ñëw leen gaaw chez Cheikh Mega Couture chez Cheikh Mega Couture lépp loo bëgg ci ñaw moo xam pour góor la wala jigéen moo xam simple la mbaa broderie Cheikh Mega Couture daf lay defal lu exceptionnel foo génn ñu xoolaat la da ngeen bëgg di sañse lu rafet da ngeen a bëgg di sol lu am classe daw si leen gaaw fii ci Cheikh Mega Couture ñu ngi nekk fii ci Comico ci wetu arrêt 82 bi contactez-nous au 77 802 80 17 ou le 78 215 00 10 ak Cheikh Mega Couture Votre satisfaction est garantie.